war si def kenn ku xam na ne la ca waroon a nekk nekku ci nam waroon a mel te meluñu kon dama ne bala ngaa wax doomi jàmbur sa doom ba pare bala ngaa wax kenn waxal sa bopp ba pare ñun ñoo war def attention. Mm-hmm. ak accident amul kenn ku ci bénéfice. Mm-hmm. lépp pertement la. lépp pertement la lépp pertement la. loo xam ne boo koy def pertement la. Mm-hmm. jarul def. jarta def. mu ngi noonu déjà sa oto dina yàq yow di nga ca jëlee ay gaañu gaañu liggéey ba la taxoon ngay yàpp nombre dootoo ko mën a def yaa nga tëdd ji hôpital oto ba mu nga fa mu nekk soo sàgganuwul sax ca feeraay lay daal di mujjoo mu ngi noonu ki nga xamante ne ni moom moo di musa Diop en tant que vulgarisateur nga daal di nekk seenub njiit ministre ba di El Malick Ndiaye ba mu demee dafa ne pneu yi bu fekkonte ni pneu yu bees la sax dina éclaté wu ndaxte surnombre bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir ci biir oto bi rawatina pneu ya nekkul ay pneu yu bees yéen tey seen taxawaay ci li nga xamante ne ni moom moo ñeel soog euh, yu bari yi nga xamante ni am na ci kaw tali bi lan la doon ci guddi yi ñu toll. alhamdulilahi rabil alamin euh, naa ci sawar tontu lool. te mhm. tontu ba sax. am na ci loo xam ne dinaa ko tibbee ci li bàyyi góor a xuma wax. Mhm. su fekkente ne oto yëpp nga ko ba mu fees. nga nar a voyage ak moom man tout le temps dafa am loo xam ne man dama koy wax ka nga xam ne moom mooy contrôler oto ba su fekkente ne moom xam na pneu bu yàqu ak pneu bu baax ak bu mënta voyage ak nu mu contrôler kayitu auto bi ba xam oto bi ndax war na mun a génne dëkk bi wala mën a waru koo mun a génne administrativement. Mhm. bu ko defoon pneu yi oto ba du gën a tëñ kay moo tax la ma ci métti mooy lii nii dañ ko fi wax waxaat ko fi ndax gis na bu six kilo ba lu ne wax nañ ko ci mais solution mënut a am. Mhm. xam nga lu tax solution mënut a am lii nii lu def tey buñ ko compté woon di ko def te duñu déglu solution dina am. Mhm. ndax góor gi nga xam ne mooy bàyyi góor a xuma mhm. xam luy transport. xam njëgu carte grise. xam nu chauffeur war a mel. xam nu oto war man ma nekk technicien pneumatique ak fa nga xam ne aussi man falaa bokk muy UNAPAS. Mhm. ñu nekk ay technicien automobile ñii ku leen boole solution war na mun a am. effectivement état lu mu war a def. Mhm. te man ma waxoon ko. te xëy na dañ koo gistuwul mhm. mooy ka nga xam ne moom mu ngi taxaw ci tali ba te bu oto bi ñëwee moom mu contrôler kayit yi ba xam oto bi ndax war na mën a dem wala du dem. kooku bu jàngoon pën ba xam ko. yëf yi dina wàññeeku. bu dee loolu mënut a nekk. Mm-hmm. état nu mu def ba recruter ay nit ñu taxaw ci tali bi di xool oto bu mun a dem wala bu munta dem. Mm-hmm. ndax kayitam yi jag na wala jaguñu. Mm-hmm. ñu fexe ba wut ay nit ñoom ñu taxal ñu taxaw fu ñu di contrôler. ku ñëw ñu xoolal say pën ba xam parce que leen dafa am chaque jour dama koy wax. tey boo amee woon oto nga ne da dem wuti visite technique. li ngay njëkk a def mooy dem ci mécanicien bi mu xoolal la yëpp say organes baax nañ. boo fa jógee nga dem ci defarkatu pono bi. Hmm. mu xool ndax am nga kirich ndax sa quatre pono yi baax nañ ndax sa secours baax na sa injecteur ak lu ca topp yépp nga vérifié ko. loolu fekkente ne tey gars yi teg nañu ba ne tey kuy voyagé alkaati bi du mu taxawee du xool say kayit am na ay technicien pneumatique yu fa nekk te boo demee même sa ñetti pneu bu ñu baaxee te benn ba baaxul itam doo jàll. Hmm. booy voyagé da nga koy wàcc. donc loolu nag état xoolaat te déglu ñu mu war a déglu xam nga lee damay am lu ma naqari lool dëmb dafa am benn télé boo xam ne maa ngi ko doon saytaan. Mhm. ñu def benn plateau. mais plateau ba melul nii Moussa Diop mi nga xam ne kay tey mu ngi defar pneu luy yàgg am lu bari lu mu ci xam. jiite mbootaay. Mhm. xam pneu. damaa sumi sama tuni balaa ma fi ñëw. ak góor gi nga xam ne mooy baaru bay góoraxuma am luy transport. Mhm. am nu chauffeur war a mel. Mhm. ak ni ma la ko waxee léegi ñii ak ñeneen ku leen di boole léegi nga am solution. Mhm. waaye nag su fekkente ne bu mbir amee au lieu ñu boole ñi nga xam ne ñoom ñooy les concernés mais ñu jël ñu nekk ci bureau yi rek ñëw daal di ci wax ñaari fan ñetti fan ñu daal di bàyyi. Mhm. yëf yi du sotti. te nag. état bii nga xamante ne moom moo teg ko maa ngi leen di ñaanal di ñaanal Sénégal yëpp. ngi xoolaat bu baax a baax a baax a baax mesures yi. mesures yooyu sax dinaa ci ñëw ak yow mais mm-hmm. sànq wax nga ko nga daal di nekk koo xamante ne nee nga sa ni nga summi ngir mën a ñëw ci plateau bi. Mm-hmm. tey pneu est-ce que yell na pneu boo xamante ni dem na ba usé ba yàqu. Mm-hmm. ñu defaraat ko ñab ñabal ko. tegaat ko ci marché bi ne ñu ngi koy jaay. chauffeur bi ñëw jënd ko yàpp ci ay doomu aadama demak moom est-ce que loolu yell na ci transport. pëna bu ñu ñab ñabal amut. xam nga loo am. pneu yàqu doo ko xam. parce que pën am na nu muy yàqoo da nga ci taal di tëg bët pën dafa am nu muy yàqoo mun nga ci tëg bët am nu muy yàqoo mun nga ci tëg bët mhm. technicien moo ko mun a xam mhm. léegi nag saafara ba mooy yow mii nga xamante ne yow yaa yor oto bi bu pën bi yàqoo buñ la ko waxee nga nangu ko mun koo changer wala boo ko xamut ñu am ñu taxaw ne la pën bi dafa yàqu nga changer ko par la force mhm. moo tax sanq ma ne la état bi nañ fexe waxtaan ak vulcanisateur yi waxtaan ak mécaniciens yi waxtaan ak transporteurs yi parce que ñooñu ñooy les concernés keneen ku ci wax ku dul ñooñu solution door mais yéen ñi nga xamante ni yéen yéenay concerné yéen tamit baaraamu tuuma dafay jublu ci yéen. Mhm. le fait que ngeen di defaraat pneu. Mhm. jëlaat pneu boobu dugalaat ko ci biir marché bi di ko jaay te mu nekk pneu boo xamante ni pneu bu usé la pneu bu yàqu la. seen responsabilité def ci engagé wu ci côté boobu. mais Sénégal ban usine ngay gis muy defar pneu Sénégal bu fi defar amu fi. loolu amut xam nga lu am. Mhm. ma ne cheveux bi nga xamante ne moom moo war a changer pneu. te pneu yàpp ñu yàq wax la ko nga mun koo changer changer ko wala nangoo koo changer nga dem. léegi nag loolu lu. changer bi naka dafay ñëw ngeen euh, rocci pneu bi waat defar wala da ngeen koy defaraatal beneen pneu boo xamante ni da ngeen ko defaroon. loolu détail yooyu laa bëgg nga expliquer ma naka lay demee. exactement xam nga crevé doo dafa am pneu bu yàqu am. crevaison mooy pneu bi nga xam ne xëy na bënn na mais trou ba boo ko fàttee pneu ba mun naa demaat. Mhm. mais pneu bu xar. Mhm. wala mu usé. wala mu dem ba ovale ovale mooy gondole. Mhm. mais pneu boobu su fekkente ne yow mi euh, chauffeur munoo koo xàmmee ku ko mun a xàmmee taxaw ci yoon yi boo ne mu ne la yemal fii. d'accord parce oto bi nga xamante ne tey dafa yeb ba fees. mu surcharge nga dem ba tëj ngeen ñu ne ah. sur saasana munoo dem parce que du lii la ñuy waxante poids ba nga jël bari na. Mm-hmm. nit ñaa nga ci biir oto bi te li nga jël ci poids yenuwul maanaam. Mm-hmm. nuñ ko xoolaatee ñu xoolaat kayit yi ne ah kayit yi oto bi apt na yow muy dawal sa kayit leer na. Mm-hmm. am nga sa permis de conduire. oto bi jàll na visite technique donc oto bi wér na. waaye nag pneu yi nga ci def nag pneu yi dañu am ay anomalie. waaye demal nga taxawee ne. gaa ñi bu ñu xamoon ne boo demee tëj nga doo fa la bàyyi nga Mm-hmm. léegi problème bi saafarawu léegi problème bi saafarawu te loolu nag kenn mënu koo saafara. Mm-hmm. lu dul lëkkaloo ak transporteurs yi. Mm-hmm. ndax moom ñoom moom oto yi. lëkkaloo ak vulgarisateurs yi. ndax ñoom ñooy defar mais lëkkaloo aussi ak jaaykatu pour yi parce que ñoo yore marché bi. effectivement loolu mu ñu ko defoon léegi saafara am incha allah. léegi saafara am goro Khouma ma retourné waat ci yow par rapport ak mesures yi nga xamante ne njiitu réew ma woon Macky Sall jëloon na ko sànq ci say biiri kàddu yaa ngi fàttalee accident wa nga xamante ne amoon na ca Sikilo ak ba amoon ca Sàkkal ay bakkani doomu aadama yu bari daal di cay des. waxtu boobee nguur gi fi nekkoon jël ay mesures ci li nga xamante ne moom moo di surcharge jël ay mesures par rapport ak Versailles yi nga xamante ne nii ñu ngi koy teg ñu ne dootul tegooti oto yi dootu ñoo génnati di daw diggante dëkk ak dëkk maanaam dootoo jógee ko dakaar gi di dugg fa nga xamante ne nii moom moo di Thiès diggante région ak région ci bu min wi jotee mesures yooyu fan la toll. waa damay leeral ci ne bi jëy ci amee bokk na ci mesures yi gouvernement bi mooy na porte bagage dañ man bokk naa ci toog ci taabal wax ak ministre Mansour fay naka loolu mënul nekk nit ñi ak seeni bagage ñooy ànd oto ku nekk booy dem da nga yore sa saak te saak yëpp xajul ci biir oto mhm. te oto yi fi nekk amul sit maanaam amuñu bot waasu wet mhm. oto yi mu mujjee ñëw am nañ ko mais oto yi fi nekkoon amuñu ko te nit ñi il faut ñu voyager mais ñun ba ñuy wax loolu ñu juboo ci am ministre bi ci sept places cinquante centimètres lañ ko may. Mhm. bu rombee sept places ba ci Njaga Njaay ñu jox ko soixante dix centimètres. Mhm. bu rombee Njaga ba ci bus quatre vingt dix pour que passager kenn ku rekk mën a yor sa valise bàyyi sa yor sa sac mais loolu amatul te ku wax ñu mereel ay saako lañu ñuy yëpp. ba mu fees. ciment la ñuy yëpp. dem ba oto bi weng. lépp la ñu def loolu bokkul ci sac de boo boo gisee ñu ne ministre bi mënul ñàkk. image baa ngi noonu. boo gisee ñu ne mënul ñàkk. Mhm. ñiy voyagé di jóge dëkk dëkk dañu yore sac. Mhm. avion sax boo ci demee da nga yore sac. comme yoruñu oto yoo xam ne dañu am chute kon nañ leen may fu ñuy mën a yabe. booy xool nag am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi koy respecté ci bus yi quatre-vingt-dix centimètres yi. am na ñoo xam mais am na ñoo xam ne ñii ba léegi ñu seen gratte-ciel. Mhm. mais gratte-ciel dafa am loo xam ne lii soxna si. Mhm. muy policier muy gendarme muy douane ñi ngi ma ciy mere. te mhm. man bëgguma ñu mere ba ci. Mhm, muy lan. bàyyi góor xuma def ñuy xeex dañu xas. kii di policier kii di gendarme kii di douanier. kii di soldat ku leen tiitarul kan ngay tiitaroo. ko. nit ki rek boo ko tiitaroo boo gisee def lu jaadul nga wax ak moom. man samay mbokk samay xarit samay am di jàmm ñëpp a ngi yi. kon dinaa défendre corps boobu ku ko dégg. kuñ ko waxee nga siggi mais dañuy toll foo xam ne bu ñu waxee nga sëgg. talib yi du du moyen am xaalis buñ bëggee def kat muy muy muy talib yi nekk un bailleur dëgg du fa am kuñ fa jëlee sax nga mer kuñ yóbbu ci bureau bu climatisé jox la ay keneen ngay naan doo laal talib yi nga dañ maa xeex kañu xeexee mooy kañ bàyyi ci naajo kooku lañ war a xeex mais kañ jëlee ci naajo indi la ci ker gi. Mm-hmm. jox la bu climatisé ngay luy seen journaux di naan say kanet Mm-hmm. nga ne dañ maa xeex. Mm-hmm. dama ne ñun amuñu lu suñu police bi. Mm-hmm. amuñu luñ suñu gendarmerie bi. parce que bulul ñoom du baax. kon ñooñu ñu ñu leen ay homme de tenue ak femme ñi leen femme de loi ak homme de loi. ñoo ñooy suñu yaakaar. yaakaar boobu nag moom moo tax may wax li may wax. mais aw ma intention di xas ma sàmb xaw ma intention di ma dem alhamdulilah rabbil alamin nag bii le président Diomaye yi ñëwee. Ousmane Sonko ma dégg leen ñu indi benn Mm-hmm. dañuy xeex corruption wax ñoo ko wax de man waxuma ko. Mm-hmm. corruption mooy freiné économie dëkk bu mënti doon. Mm-hmm. dëkk mënul émerger mukk ñu ne askan wax ci corruption la ñuy dund ñu ne dëkk bi dina avancé du am mukk ndax li waroon dem trésor du dem trésor ci poste lay dem. yéen moom seen milieu bi corruption da cee daal di bari. moo war a tax nag président Diomaye war a jël ay matuwaay na ci lii. ma ne dem mënul ñàkk porte bagage mais boo déggee porte bagage ñamuy yàpp seen sac de voyage ñoo ciy nekk seen i yére ak seen nangam nekk ci mhm. mais du boo xam ne day yab ngooñ di yab këriñ di yab ciment di yab ay karo loolu du voyage ñu dugal ci ay nit ca biir te bu jiyee amee ña respecté woon ña mhm. respecté wul yàqal leen mhm. fi nekk nii képp ku yore bus fi nekk nii am nga problème te fekk am na ñoo xam ne ñii ñoom ñoo indi loolu lépp kon gouvernement day war a jël ay responsabilités am ñun ñuy jël bi lu amuloo ci gouvernement bële joomu dina am ci bii muy ministère ministre du lan moo tax gëmoo ko ci fii. lu tax ministre du war a jël ay responsabilités am. Mhm. du ministre du travail boo xam ne bii fonction publique la fi nekkal publique bi la fi mhm. transport da cee bokk. dëgg la kon ñii dawal oto yi. Mhm. dañoo convention ak lu mu yàgg yàgg convention boobu dañ cee war a uti ay pexe. ñu ay déclaration su ma la su bu baax mesures ya nga xamante ne jëloon nañ ko ci nguuru Macky Sall kon mesures yooyu ba tey du dara loo xamante ne ñu ngi ko ciy appliqué. waa xam nga appliqué ka gouvernement day bind ministre day bind. waaw ba président bind ba premier ministre bind. waaw kan moo koy appliqué def lu ma neex. tasanteeg keneen muy def lu ko neex. Mhm. kon su boobaa suñu way takk der yi est-ce que amuñu ci part de responsabilité. première ñooy ñun ñooy premier ñoom ñooy deuxième. ñun ñooy premier mais ñoom ñooy deuxième. xam nga këyit buñ bi def bind. Mhm. pour wane la Sénégal léeg-léeg du ma mën a comprendre. en 2004 damaa négocié woon ak premier ministre Abdoulaye Dione euh, euh, Diouf euh, kii Boun Abdallah Dione mhm. pour que tabaski bi bu tee ñu mën a may ñi moom seen xar gën ngaa bari ñett gën ngaa néew ñett pour ñu toppatoo jur gi. Mhm. assurance yi bañ gouvernement bi jël responsabilité ci période bi bi bi bi bi arrêté bi amee ba muy jeex problème yooyu assurance dina ko jël état moo ko jël. Mhm. ñu boole ci ay macaron xam nga tappale mu ngi noonu. macaron nekk lu dul marché. Mm-hmm. mais premier lu mu signé. Mm-hmm. muy circulaire ñu ne telle date telle période bi telle wér li couvrir na ko. Mm-hmm. dafa doy sëg ci oto. doy kon lu fa Macron uti. Macron marché la boo xam ne bii lekkaayu xaalis dong la Macron yi ñuy def ci tabaski bi. man bu ma taf ci oto yi. so Ousmane Sonko dama koy ñaan premier ministre. ne ko Macron bu ko fi kenn defati. arrêté boobu. Hmm. mu signé moom président moom premier ministre Ousmane Sonko. bu hmm. doyut am Macron mënu quoi mu complété moom bëggul lu waratu ñoo def lu yàq xaalis. Hmm. ministère euh, ministère de l' élevage ministère transport. ñoo lënkaloo créé marché boobu ut ay Macron. di jox nit ñi tam aba arrêté ba pare premier signé ko. loo utiwaat ba leneen yàq xaalis na. te loolu dafa indi ab njàpp bu dul jéedu xaaj. ma bëgg ni ñu ne. ñun conducteurs yi nañ jël suñu responsabilité bala ñu ñu kaa jël loo. jot na.